Ah! mooy fal fale jay ku ko neex mu fal la ngay fale kii mooy saabul kumala awal fadaayilu maalam yahwi aadun ku dem moom xam ni kii mooy saabul fadala moom raw na mboolem ñi fi ci wàllu gune soo daanu bii daanu fooree naari laaj si na maamam sëriif la sëriifun bun sëriifun sëriifun bun sëriifun sëriifun tuuma jubluwu du xotti saatir du tas yaakaar du daw ko ko laaj ku laaj may la nga gijal fa lu xanii xanaa Mouhamadou Mokhtar maa la ko wax yow sew na fadlu yaa moom yëgi may ma ci laa law laa ko seex fadlu xéewal yi walwali kon du ñu walwalee te na ngeen way seexu nal fadala fadlun asimu serifun faarin fatinun mbàkkeng bu soobe la bu soobe la mbàkkeng bu soobe ki mooy njiite mooy wasi la loolu dem na xéewal yi aban ko sopp seex fadlu xéewal wër la lor dëddu la day a man adaa seqalu fi aban xëy ilaa man adaa tànnee bi xam nañu la loo wax borom nguur ga gaaw koo def ne yaay ko juboog waadu diwaane seen mbooloo ma xam nañu la bay ci wilaayat yi yaayal sonn mag ba bu wér sëriñ nga yaa jiite mboolem ku ñu waliyu la gaal gaa ngi nii teer ku nekk ba tànn yaa xaree ku dugg gaal sëriñ bi fallu àggale la fallu la yàlla faale nan ko faale faale wul Seex Fallu bu leen ko faale